salaamaaleykum mag yi naa def naka yitte yi baa ci jàmm naka mariem nu mu def baa mi ngi ci jàmm ana gone yi ñoom amadoog ñoom ñëpp baa ñu ngi ci jàmm rek alhamdulilah mag ah wuy ma tiit tiit jooju ngay dégg tiit tiit ngi koy dégg sama compteur Woyofal bi la mooy sab noonu de sama compteur Woyofal bi ma may si ñaari ne dafa jeex walla asim fi ne ni yoruma sax lu ma ko chargé waa Macky a wax sama kër ah ñun de weer bi bi ma calculé weer bii nii bi ma calculé jënd nañ ci Cora vingt sept mille cinq ñaari fi sama ventilo laa fi branché sama mini frigidaire bi sax taalatuma ko donc ventilateur bi la ventilateur bi la wifi bi ak sama ordinateur ñoom ñoo fi branché beneen néeg bi sama petit frère bi moo fi ne néegam lan moo fa nekk ventilateur ak ordinateur ah fàtte naa sama téléphone bi ak téléphone am ñun lii la taal ñun duñ seetaan télé sax ordinateur la ñuy seetaane Netflix film jeex waa Macky bu fekkee ne ñaari ventilateur ñaari téléphone portable ñaari ordinateur ak wifi da nga war a lakk vingt sept mille cinq cent ci weer bi kon ñun fu jëm s'il vous plaît fan lañ jëm Macky man dama daan jënd cinq mille da daan dem weer. cinq mille donc dama ko doon jënd te da doon dem weer wala ma jënd dix mille mu dem weer ak genn wàll bu fekkee taal naa sama mini frigidaire bi mais sax ma mini frigidaire bi ça veut dire que mënatuma conservé mënatuma naan ndox mu sedd mënatuma denc dara boobu ba may taal mini frigidaire bi dund gi daa gënoon yomb ndax du ma sànni dara lu ma desal fi laa koy sotti bi ma sama kii ak kii toggalee ma dugal sama mini frigidaire congelé mënatuma ko. léegi dundi gi day gën a metti ci courant ba pare gën a metti ci dundi gi lekk geeg naan gi ci bu pale Macky doo jóg ci sa réew mi waaw man de courant bi xaw ma lu ko yokk comme ñun dañoo am courant bay maye ci bitti bay jaay ci bitti waroon naa yomb ci ñun wala asim waroon naa yomb ci ñun Macky ci <laughs> bu pale bu dee mënoo doo démissionné ah wala nga wax ñu courant bi lu tax mu yokk wala est-ce que du yi gone gi jënd sama sama sama petit frère bi jënd na airpod est-ce que du airpod yi mooy yokk courant bi kon airpod yi la mën naa am airpod yi la airpod yee ko jëlee cinq vingt sept mille cinq cent yi la dinaa ko wax mu dindi airpod yi muy branché ba xam bu fekkee dindi na airpod yi muy branché bu wàññi ko wul nag ma génn nag wax ak yow ma ak Sall ma xaram rek.